asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci benn tënk ci dunduk soxna jaara buso mi nga xam ne mooy waajuru Cheikh mat Bamba euh, mbokk yi soxna jaara buso turam dëgg-dëgg mooy Mariama buso waaye jaaratullah gi garaad la ci moom ndax jaaratullah mooy ku dëkkaaleeg yàlla ku jege yàlla buñ doon wax ci wàllu tubaab dañ naan la voisine de Dieu mbokk yi nag ci biir loolu nañuy moytu di wax jaariyatullah xëy na ñu bëree bari neexal lañ ciy jublu wala jàpp ne moo gën a jaar yoon fekk boo nee jaariyatullah rekk dévier nga moo bi ci sansam ndax su boobaa day nekk jaamu yàlla bi maanaam da nga koy dugal ci wàllu jibéer wala jaam muy li ñuy wax esclave te fekk liñ bëggoon a wax mooy ku dëkk ak yàlla euh, ndax taqoogum taqoowoon ak yàlla di ko jaamu di jëfe ndigal yi di moytu tere yi mbokk yi soxna jaara am nag may waaye nag may gi Pastef a ko jiitu taxawaaye ko jiitu ndax su fekkoon dafa am may kase kase gu àndut ak Pastef àndut ak taxawaay kon du mat royukaay lii wane ne taxawu nañ ko mooy bi muy am treize ans fekk na mu mokkal alquran géeju ci xam-xam yu bëree bëri wax nañ ne sax waajuram bi nga xam ne mooy soxna Aïchatu Mbàkke ñu gën ko xam ci soxna Astawaalo moo ko jàngal alquran ba mu mokkal ndax soxna Astawaalo ku ne xamoon na ko ci yiw ak euh, fonk diine ak mën a jàngale wax nañ ne sax da faral di sol ay jàllaabi moom soxna assawaalo ngir jëfe aaya boobu yàlla ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabibihin dhalika an yu'rafna falaa yu'dayna wax nañ ne daawu ki sol benn daawu ki sol ñaar waaye daan da daan tegale da daan tegale ay jàllaabi ba mu mat juróom ñaari jàllaabi ngir gën a yiw rek bu ko defee bi muy am treize ans moom soxna jaara fekk na mu mokkal alquran waaye sori lool ci xam-xam bi mu demee ba am quatorze ans itam euh, baaxoo woon na di wàcce kaamil ci juróom-ñaari fan bi mu amee fukki at ak ñeent muy quatorze ans moom soxna jaara da daan wàcce kaamil ci sept jours juróom-ñaari fan nga xam ne weer wu jot mu wàcce kaamil ñeent yoon ci bi mu amee quatorze ans ba léegi itam da daan jàng téere boobu nga xam ne mooy dalaa ilul xayraat nga xam ne dafa làmboo ay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, moom soxna jaara bi mu demee ba mata dem boroom kër ñu war koo dénk Mamor Anta Sali euh, guddi giñ koy muur guddi giñ ko muuree muy waaj ngir war a fekki kilifaam googu waajuram bu góor dane ko xasal xasal xas mooy nga sas sa bopp ne fii may dem ci sama boroom kër fa ma war a dem di fa mottilee sama jaamu yàlla dinaa fa liggéey ba am fa nangam maanaam day mel na kuy lancer benn défi kuy lancer boppam défi ñu wax ne bi ko waajuram woo waxee ne ko xasal moom soxna jaara dafa ne bërit daal di dem jàpp ba sell jël kaamil ba daal di ubbi mel na kuy def istixaar nee nañ ba mu istixaaree dafa yem ci aay bi yàlla ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyin ca la soxna jaara waxee ne ah bunt bu yàlla tëj de kenn mënatu koo tijjeeti ndax yàlla wax na ci aaya bii ne bunt bu yonente tëje na ko ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye su fekkoon du li yàlla tëjee bunt bu yonente ci sayduna muhammad sallallahu alayhi kon de dana waat ne su ma demee fee ca sama kilifa gee danaa fa am ab yonent waaye nag yàlla may na ko fa lu kawe ndax danga naan euh, rasulullah boo ne nga teg ci euh, jaaratullah teg ci xaadimu rasulillah teg ci muridullah moo tax am na benn bis benn naar ñëw ci kër sëriñ Touba di tagg boppam naan may diw diw jur ma diw jur ko diw jur ko di wàññi ay maam ba àgg ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog sëriñ Touba dafoo wax Sëñ Mbàkke Juuf ne ko jugal tontu naar bi Sëñ Juuf daan ne ko waaw yow day ku baax nga ku tedd nga waaye nag kon sëriñ Mbàkke Juuf daal di jóg wax ak naar bi wax ko loolu ne ko yow day ku tedd nga ku amug may nga ginnaaw noonu nga jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaye nag suñu waa ji moom booy lim li ko booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ba du yàgg ndax danga naan rasulullahi rek daal di cey toftal xaadimu rasulillah nga xam ne donte askanoona ci moom ci ay maam waaye doyloowul loolu waaye dafa liggéey ba am ci moom xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ne moom soxna jaara bi mu demee ba tollu diggante euh, bokkoon na ci li nga xam ne feeñoon na ci moom nga xam ne mi ngi ànd ak ku tedd ci zahir tollu diggante daawul yëg tàngoor diirub li mu ànd ak ku tedd yépp nga xam ne bu ko neexee mën nay dox ciw naaj te du yëg tàngaayu naaj wi bu ko neexee itam mën naa jël loxoom dugal ko ci taal wala mu téye ab xal te du ko yëg kon loola day mel ni day wane ne ki mu àndal ku texeel a tey texeel waaye itam bi Cheikh Ahmad Bamba feeñee mu suturaal ko ndax daana ko gis ci ay melokaan yu bari léeg-léeg daana ko gis mu mel ne ku sujjóot maanaam nekk ci position sujjóot yi ñuy def ci julli te booba tuut tànk la ci zahir mën nañ ne amagul weer wala amagul ñaari weer muy sujjóot waaye itam ci âge boobu itam daan na ko dégg muy wax wax ju leer naññi ci misaal am na benn bis am mbokk mu amoon am tudd Mamor Anta Sali yónni soxna jaara ngir mu ndaw talal ko ko booba mag ñi dañ ndaw talante ci wàllu dugub ak sunguf mu ne ko ndax am nga foofu bagaanu sunguf soxna jaara ne ko waaw mu ne ko jël ko tanga boole ko téere bi nga dem joxal ma ko diw ne ko maa ndawtale bagaanu sunguf bi téere bi nag na ko takkal tout tànk bi soxna jaara daal di boot ku tedd ki sëriñ tuuba ànd moom ñuy dox ba ci àll bi sëriñ tuuba ne ko foo jëm mu ne ko sa waajur mooma yónni sa waajur wu góor wi mu ne ko fu mu la yónni mu ne ko caq ngéntel diw la ngir ma jox ko bagaanu sunguf bi ndawtal ak téere bi mu takkal ko tu tànk bi sëriñ Tuubaa ko ñun nag duñ ñuy dem ci xew ñun duñ ñuy dem ci xew soxna jaara dëppaat kon loola itam ku am sutura mooy taxawe noonu ku am discrétion am bàmmeelu biir mooy taxawale taxawe noonu euh, bu ko defee kon euh, ñu bàyyi xel itam ci ne waajur wu baax dana di xeetili doom ginaaw bu génnee àdduna ndax Sëriñ Tuubaa bañ ko e, defalee loolu ñuy wax am yeer yeer mooy ñu gasal ko benn pax teg ca kaw lu oyof loo xam ne ku ca dëgg tànk rek daal di mëbëx daal di tàbbu ca pax ma waaye nag ñu làqe ko ak suuf ba boo ñëwee doo xam pax doo xam ne paxa fa nekk defal nañ ko ko ca Gabon ca tukkeem bu rëy ba mu ñëw daal di mëbax waaye dañuy wax ne booba soxna jaara moo ñëw jox ko loxo ne ko génnal liggéeyali sa boroom te booba soxna jaara génn na àdduna ci zahir waaye bañ ko dugalee ca néeg bu xat boobu ca ndakaaru foofa muy waxe ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa thabuta toorat ila jihaadi bil armaaxi nafsi walakin dabba anni al foofa itam néeg ba xatoon na ba noppi ànd ak ràbbu yoo xam ne fu mu dëgg tànkam rek ràbbu jam ba sar ba sar ba génn ci tànkam bi boobu itam soxna jaara moo ñëw génneel ko ràbb yi ne ko boo nee uh rek xam ne fii la sa mission di yam kon bul jàmbat bul wane benn màndarga buy wane ne am nga naqar dañu wax ne itam euh, moom soxna jaara saa yu musaana aaye bu daan root sax donga yi dañ koo miinoon ba dañ koy topp di ko jooru di tànq la muy root mu yanu ko mu diis lool ñu koy tànq di ko tànq ba buy ñëw ci kër ga tuuti lay indaale léeg-léeg sax du indi dara mu mujj delluwaat rootaat te daawul wujje ndax moo daan root ay ndaawam rootaaleel mboolem ñi mu bokkaloon di liggéey ci kër Mamour Anta Sali ñu leen di wax ay soxna mu rootal leen seeni ndaa ba mu fees dell dell dell nga xam ne moom yiw rekk la daan wut daana faral di dajale taalibe di leen delloo ci yàlla ndax wax nañ ne ay waxtaanam ak ñoom li ci ëpp mooy da leen daan xuusal ci xisosul ambiya di leen nettali histoire yi yonente yi salawaatullahi wasalaamu kon nag soxna jaaratullah mi ngi noonu nekkoon ko am taxawaay ci wàllu jàng ak jaamu yàlla ak euh, déggal boroom këram ak euh, am sutura ba ca sàkket wi ko Mamor Anta Sali téyeloo woon doon sàkket ba ca digg ba mu am lu war a doxi ne ko jàppal ma ca sàkket wa mu téyel ko ko ca waxtu marax waaye comme doomu aadama moo fàtte ànd Mamor Anta Sali fàtte ko ba fajar jot mu yeewu rek jóg gis luy ñuul mu ne ko kokkan la mu xamal ko ne ko moom la jaaratullah Mariama Bousso mu ne ko looy def fii ba heure bii mu ne ko yaama joxoon ndigalu jàppal te joxagoo ma ndigalu bàyyil loola itam nekk lu riche kon soxna jaaratullaa mi ngi noonu feeñoon jamono ci ni koy yenn ci historien yi di waxe vers 1833 waaye mu wuy ji boroomam ci côté 1866 ak dundam tolloon ci 33 ans bariwul ci zahir waaye ci baatin nag yaatu na lool mu mel ne comme ni nga ko waxe woon ne ab liggéeyam ay maam moor jaare yéen a jëy bàmba yéen moo ëpp fay jëf moo waral mu am jaajëf